mauvaise nouvelle pour kookee di Real Madrid seen gone gi nga xam ne depuis ba mu fa ñëwee ba léegi jom fulla ak fayda moom lay wane ci biir terrain bi ak ay performance yu am solo moom nag dafa mujje ab blessé muy kan Jude Bellingham durée d'indisponibilité bi dinañ ci ñëw benn par benn salaamaaleykum gars yi nuy nañ leen ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant d'abord képp koo xam ne nii abonné goo sunu chaîne YouTube bi te nga dugg ci chaîne bi luñ def lu dul wax la nga abonné activer cloche bu ko defee benn suñuy vidéo fii ci YouTube bi du la raw waaye surtout ngeen di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir ah, bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne nu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir ñëw ci kooku du Jude ah, Bellingham bi nga xam ne dafa blessé démb ci match bi doxoon diggante Real ak Girona di leen fàttali ci match boobee Bellingham doublé la fa laal ah, def un match bu exceptionnel mu ngi noonu waaye finalement mu jut a génn euh, mu jut a continuer match woo dafa mujjee génn euh, ci euh, match bi à la cinquante-huitième côté yooyu mooy rek euh, sur blessure ci noonee nag bañ xoolee blessure bi entorse la am ci sévi bi loolu nag war koo mën a euh, xañteene lu toll deux ba trois semaines mu loo xam ne nii coup dur la pour Real euh, Madrid waaye ñenn ñi nga xam ne seetaan nañ Real ba Bellingham blessé jamono yële dañ ne ah du coup nag am na meilleure période boo xam ne Bellingham toog na lu tolloog mën naa ni deux semaines footballu ko ci noonee Real ay biom dafa gënoon a yokk loolu nag jaaxal ñëpp ëlëm ñëpp waaye sax ci la kookee di Brahim Diaz gën a révélé wo foofee ca Real Madrid nag dafa am temps

marqué kan la war a teg actuellement sax Real seen défense bi daanaka mën naa ni ñu bëree blessé cadre ci défense bi ñëpp a blessé ah, mu ngi doonee waaye mu ngi essayé di dem ak moom jeu équipe euh, boobee di euh, Girona doon dauphin nga xam ne ñëpp dañoo yaakaaroon ne sax Liga moo koy jël Real amul daanaka défenseur yu mag yu fa nekk ci bëri dañoo blessé mu ñëw géré ko dóor ko 4 bi à 0 kon nag mën naa ni merengue d'une part mën ngeen a tiit mën ngeen a bañ a tiit li tax ma ne ma ngeen a tiit Ligue des champions yi ay match yu décisif la semaine bii la ñuy jublu ci Ligue des yi mu doon loo xam ne nii euh, merengue yi bëggoon nañ cee gis kooku di Jude Bellingham mais malheureusement je ne pense pas que ni am na yenn match yoo xam ne dina ko football yu bëri dina ko euh, jot a rate nag deux ba trois semaines euh, moom la nar a toog euh, du ko football. doon loo xam ne mën naa ni coup dur la pour ñooñee di waa Real Madrid ci Ligue des champions bi ñu nar a toog duñ gis kooku di Jude Bellingham merengue nag ma leen di xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee nouvelle boobee ba xam jàppee ngeen ko coup dur wala da ngeen maslaa bàyyi mu sedd continuer seen victoire ou pas wala nan ngeen ko gisee ngeen bindal ma ko ci commentaire yi jàmm ko xam ne nag abonné goo suma chaîne YouTube yi damay seetaan lu ma def lu wax la nga abonné activé cloche bu ko defee benn vidéo bu ñu def ci YouTube bi du la raw mais surtout ngeen di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous